ñëwee ci loolu suñ jógee ci loolu dañuy ñëw ci li xam ne mooy làmb comportement yi nga xam ne moom la li def ci face à muy diggante Ada Fass ak ki xam ne mooy Zarko ah, loolu moom dama ko ñaawal parce que man dama ko fekkee man jour boobu dañ maa dóor lacrymogène ba ma sonn vraiment loolu loolu dafa mel ni intifada la woon inti intifada yi ngay dégg ay ay si pays arabe yi loolu moo amoon jour boobu bunt 2STV mu nekk lu ñaaw parce que en face yaa yaa am na benn maison voiture bu mag automobile mooy CFAO lu ne mënoon na fa xaj mais ay sànnante ba xeer sànnante lacrymogène agression yi kenn xamu man sama téléphone tuuti ñu yóbbu ko sama téléphone tuuti ñu yóbbu ko ensuite vraiment organisateurs yi war nañ jël les devant bu ñuy defati face à face benn warul guddee ba dara mbaa ay deux heures du matin ñaar service d'ordre bi dafa war a doy ba nga xam ne du ñu dem di waat ñeneen. ay renfort loolu warul leen si fekk. mais dafa am lu ma dégg ci amateurs yi. ñu ne yenn promoteurs yi ñoo ñooy événement yooyu pour seen combat am coow. waaw gars yi ba dinañ créer ay événement pour mu am coow mais créé wuñu événement pour ñaari camp yi di bagarre loolu promoteur bi loolu mënul si dara loolu booy ñoom ñoo andi seen i indiscipline totale. man waaw. promoteur bi la ñuy la ñuy créer de bu yeboo donc promoteur yi dañu war a jël seen seen matuwaay lu moor doom amoon tey bu fa dee amoon promoteur bi la ñuy jàpp. dem dee di ut di enquête avant ba dara di xew donc loolu balaa mu leen siy fekk. nañuy jël les devants les devants mooy service d'ordre bu doy les devants mooy face à face yi nag teel a commencé du ñu bàyyi face à face buy commencé 23h minuit muy jeex 2h du matin 3h du matin loolu day gën a yokk violence bi nañu jéemul CNG war na jóg si loolu ba nga xam ne face à face au plus tard plus tard mu commencé 20h mu jeex 22h wala 23h man daal loolu laa amoon si la mais bu continuer nii damay ragal ministre des sports wala état bi tëj làmb li am keroog mun na 2h bu ñu moytuwulee làmb mun naa tëj lii mun naa tëj yaam parce que Ada Fass Zarko dafa mel ni daal guerre la ko quoi te du guerre du guerre ñu nekk ñu Beyrouth nekk ñu Liban fii Sénégal la ñu nekk dëkku jàmm la ñu nekk nañu bàyyi si li ñuy def ñoom duñ ñu yàqal ñun làmb ji ñi siy tedd daa bari ñi siy tedd dañ si gis seen bopp daa bari làmb kese la day jeex gis nañ fi kombaa wu combat ana Tyson tey ana ana ana ana ana ñoom Tapha Gueye ana ñoo ñoom ñëpp bàyyi nañu te ñii dañuy mujj bàyyi donc bu ñu yàqal suñu affaire Ada Fass xale bu ndaw la day door a doog làmbam moo ngi si bund làmbam bu ko gaayam yi yàqal Zarko amul lu mu wanewul si làmb donc bu ñu gars yàq image yu Zarko Zarko mbër la kaamel la ndaanaan la mais lii bu kon ne day yàq image de marque day yàq image de marque euh, Ada parce que ñoom ñaar du ñu ay cancer ay nit euh, ñu ay nit la ñu am ñu leen bëgg am ñu leen topp bu ñu yàqal sunu sunu business daal. Ada di xale. fekk fi Zarko Zarko di mbagam ñoom ñaar ñëpp ñu jóge ci ndam ci ñoom ñaar seen seen kanam seen xar kanam lan nga gis ci ñoom li gis ci moom mooy Ada dafa màgg trop dafa màgg daf maa jaaxal parce que Ada Fass gisoon fi mois d'août ak Ada Fass bi ma gis kii dafa diamétralement opposé dafa am évolution bu doy waar dafa dem ba tollook sarko loolu moo ma jaaxal man bu njëkk ba dama doon wax ne Ada Fass dafa waane nan la mën a jëlee Zarko Zarko day ñëw jaar ci kaw mais changé naa wax changé man maa changé Zarko man dama la joxoon favori à 100 pour cent mais man maa changé xale bi moo gis keroog dafa màgg si doole màgg si doole bu baax a baax a baax ba tolloog yow donc attention Zarko xale bi mën na laa tër yëpp dañ ñëwoon Ada Fass moo dàq bëre doole ji la ñuy xalaat doole ji la ñuy xalaat léegi Ada Fass na doole andi bëre loolu moo ma jaaxal moo tax li ma doon jox favori 100 pour cent Zarko loolu dindi naa ko moomu set wicc wicc wicc Zarko il faut mu liggéeyaat parce que xale bi benn da ko ñeme xale bi dafa am si lu mu toog. daa am si lu mu toog lu wóor. daa mel dañ koo dëj. daa mel daa dañ ko dañ ko dee dafa am si lu mu toog lu wóor a wóor daa gëm ne moom day daan sarko te loolu daf maa jaaxal ni mu ñemee Zarko Zarko nga xam ne léppam xadar la léppam doole la nga ñeme ko noonu si te sax ñeme wu ko woon noonu. nga yaakaar su arbitre su wàccee loxoom sa ñoom ñaar duñ dalante. non dañuy dalante Zarko sarko du xaar. Hmm. Zarko boobu lu ko teg. li mu ko teg vendredi bi passé ñu sàcc casquette bi ba léegi casquette baa ngi nelaw faas Zarko daan rek a ko jëg jëg Zarko dafa war a daan Ada Fass ne ko damal andil ma sama casquette parce que coow li yëpp lacrymogène yi xeer yi xam nga li ko waral casquette Zarko bi ñu sàcc benn booy moo dugg fi Zarko di dugg ñëw këf sargar gi daw ak moom Zarko dugg seen mbir di leen affronté ñu koy sànni xeer mu leen di affronté di leen affronté mais ful bee bare donc ça veut dire que njàmbaar la moo tax Zarko mer la fanaanoo mais Ada Fass màgg na lool lool lool lool lool. combat bu neex combat bu am. day neex combat boobu day neex man kay li ma jaaxal Zarko bari nga fit loolu mais wetu fa Ada Fass kenn du ko laal. Abdou Fall mu tëgg làmb ji loo koy wax. sécurité sécurité sécurité sécurité avant pendant et après <laughs> sécurité rek amul leneen. amul leneen soxla soxlawuñ fi ay artistes soxlawuñ fi dara xam nga luñ ko laaj. li mu nar fay artistes yi nar a fay géwël yi na ko renforcer sécurité na andi fas yi rek. fas yi ak xaj yi bu ko andee fi ak ndox mu tàng bi boo yëpp normal parce que combat boobu dafa am lu muy yokk si làmb le dimanche 15 janvier Zarko Ada Fass no lu nee la que le meilleur gagne nag jërëjëf lay fay ma euh, Saliou Bey sama sëriñ sama xarit man duma ànd ak sëriñ yëpp de sëriñ bu dëggu laay àndal sama xarit laay àndal sa sama sëriñ man duma ma ànd bu mën a fen duma ma ànd ak sëriñ buy naxe du ma ànd bu xamul dala am na ci loo nga xam ne ku mu ku ko xam ci li ngay wax da ngay taxaw nga sañ a ni lii ak lii mooy am mais gisuma gisuma ay nit yu ñuul. Mm-hmm. te doon nit ku ñuul man rafetlu ma ñi koy wax. gone su tolloo ci dem jàngi na dem jàngi mu bañ a tapale tapalekat yëpp nag ñi ngi bëgg a feeñ ndax aw aw fen mhm. jëmul déwén mhm. at mi nga ko defee ak at at min lay xame mhm. dafay dafay dafay dafay dafay jige yaandoo xam nga lan mooy xam-xam barke Seydina Mohamed bi ma duggee ci làmb xam naa ne kii mooy daan man kay maa tooxaw ma ni maa taxaw Iba Mar nga demee combat bi am stade Demba Diop mbër mi nii lay daane te nii lay daan ma ñëwaat na la na la ma wax si la li nga waxoon dem nga dama tey laa gën a xam nga xam nga luy problème bi. Uh-huh. nit ñi. Mm. même rek Tapha ji daan démb. mbër mi mu doon bëreel. Mm-hmm. ba fekkente ni woon dafa boot cumikaayu euh, cumikaayu. Euh, adversaire am mm-hmm. da koy daan. wallahi mais lu tax ñu naan kon làmb soo ñëwee sa cumikaay nga war a bot. day am loo nga xam ni. Mm, rawaan yi mën nga koo féetewoo te du tax nga daan. Mm. rawaani man nga ko féetewoo te tax nga daanu. Mhm. waaye nag jàppal fii laa koy waxee ci impro. dina am combat mag buy taxaw bu soobee Maolana te bu taxawee dina tas ak bokk wala mu andi coow. yow lii ñaar rek a mën a nekk waaw monsieur la wax nii a mën a nekk. mooy mooy. Balla Gaye Lac de Guiers eh. eh. boobu. dañ koy écho. dañ koy écho. non du ma tudd du ma du ma tudd fenn mais xam naa ne boo amee. lamb day dekki. sunu mat suba sarax bi lan la. lamb jooju bu amee. Uh-huh. di nga ma gis fii ci biir géew bi. bu àndeeg dogal yàlla ci rip wala. te mel ni mbër laay àndal. dañ ciy tax muy le roi des arènes Modou Lo. bu àndeeg dogal yàlla loolu lu muy tase mbokk loolu lu nañ nañ nañ bàyyi noonu rek après tuuti ci kanam dinaa la wax. waaw booy Sadio mi nag na ko na ko na ko jël dañ koo ragal. booy Sadio bii. Sadio bu Lam Sarr. waaw nañ ko waaw mais saa noo ma eh, man man nag ci la ngeen noo xam. kon nekkate lamb bàyyi na ma xel de. Eh, ah man pour man pour man ah. Saliou Ba mi di bu mag. ma ni. waaw 100 yi nga def ci stade dóor dóor droite sànni sa yére yi benn mbër du la jël. gis nga ndeysaan. damaa nekk ak samay mag. ñu sawar. te bar ñun jolof jolofi yi dañoo sawar te bar te billaahi dinañ téye ji làmb ji wallaahi lazim bu ñu fi déegi bàyyee dinañ téye làmb ji ñun jolof jolofi yi leer laa lay wax waaw Sadio waaw li nga wax ci combat bii bee bisimilah daanu na non wax dëgg ñu ñoom man ñoom ñëpp laa faral. <laughs> mais loolu la woon xamal leen ci règlement su fekkee adversaire am daa nekkoon ci mm. su nekkoon ci daan. su fekkee dafa tegu ci kaw saa ko daan règlement danaan dañuy validé waat dañuy bëri waat. voilà bu soufflé bu dee daa man itam su laalee saako bi. mu def sit mu def action dañuy indiwaat bëre bëre combat. kon si kon booy bi nañoo bërewaat. waaw mooy dëgg. nañoo bërewaat mais du eggal ak Sadio. moo gën ci moom dama ànd ak sama mag. waaw xaadim grand xaadim mii. di borom marché caaro yi le grand commerçant. <laughs> moo tax ma la mbër yi am nañ problème. le grand commerçant laa àndal. mais Sadio il faut wàññi man kii lépp kii la. kii moo ma téye na ma liggéey entraînel lekkal tëddal laa la sant. tey dafa ne ma ñu reeri ji yi ma ne ko lekkuma yàpp. ñànkatang ak diwtiir la bëgg tey ñànkatang ak diwtiir. Ah, da ngay ñibbi Casamance. non ñànkatang diwtiir laa bëgg tey sëñ Xaadim mii nag yàlla rek laa koy bàyyil kii barki Seydina Muhammad te gars yi gisaguñ dara man musuma ñëw lamb di ànd ak nit. man seulement ay ñëw làmb. mais kii sama mag la moo tax may ànd ak moom di ko indi ci lamb ji pour mu gis rakkam kii daf may jàppale bu ma nee damay wax mu ne ma bul wax noppil. ñu ngi dox sama combat yu bëri. mais boo yee daw. kan ñaa bu ndaw daw na jëli jokel waaw buñ bëree woon revanche laa koy may baaku boof lañ daje ma daan. baaku boof nag lañ fa tegoon. Uh-huh. nag bàyyi sama kër yeewee. Uh-huh. comprendre nga. Mor Kankang. Mor Kankang yi bëgg nañ sama combat ak moom. Kewel bëgg nañ sama combat moom. Uh-huh. maa ngi leen di xaar nag. ñun ñëpp dañoo delloo ma leen rangalee ñoom ñëp benn tàkkusaan ma daan leen. ay waaw kii koo jël mu def loolu gaaw barki yàlla li ma lay wax dama koo gëm billaahi te dafa am mag ñoo xam ne nag dañ ma bëgg topp sama ginnaaw wallaahi ku ko jël mu def loolu gaaw musuma bëri ma minute neuf combats laa bëri musuma bëri une minute barki alxuraan neuf combats laa bëri musuma bëri une minute musuma minute laa la wax man du ma dóor mu taxaw du ma la dóor nga taxaw mani ah. loolu dama ko namp c'est le vingt vingt dama ko namp déggoo ma doom day nam naa la. bu jugee si loolu. ma doon sëtu buur. samay maam di ay wàlliwu man rek maa tooñ ñëw dugg si làmb ne doon dongo daara nag doon sëriñ am ay taalibe. di xaritu yàlla. dégg na yaa ñaanal sa bopp lu waaw sant yàlla rek li yàlla naan wama umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu diin ñun diine rek lañ gëm. dégg mu bu baax ñun diine rek lañ gëm. di ñaanal nag suñu gaynde di leen ñaanal ndam barki Seydina Muhammad ci barki sëñ Babacar ak barki sëriñ Touba ak El Hadj Malick ak Limamou Laye ak Baye Kirist sax yaa ngi dégg di ñaanal gaynde yi ndam gis nga ñun sénégalais yi ñooy kar suñu bopp nañ bàyyi loolu nañ bàyyi wax ji te fubal fubalu muuma nañuy gagné par benn benn rek ba quart de finale benn benn rek ba final. soxla wuñ deux bi soxla wuñ trois un zéro c'est fini ñu gagné dem. gaynde yi yàlla leen yàlla may ndam loolu rek la ñuy ñaan. looy wax mbër yi nga gars yi dem yëpp mën lañu àndal. saltige saltige yi ngay gis yëpp mën lañu àndal. kaay kaay saltige biram kaay biram kaay ñii ñëpp man xa man xajuma ci kaw mbër. man xajuma ci kaw mbër. kaay ñëwal sama wet. biram kaay nii. kaay sama wet kaay nii. ay saltige fan lañ. est-ce que xam nga ñii ñëpp. man la ñu àndal man xajuma ci kaw mbër. Uh-huh. wallaahi kii bi may ànd ak moom ay xale lañ. Uh-huh. mu dëkk Jilaas. ma boot sama saak jugee Dakar bëreeg infra rouge sama premier komba dóor ko ba mu yenu ay loxoom daw. ma ñàkk làmb jooju. ñëwoon na bi ma demee bi ma demee Jilaas. moom mii moo ma doon bootal sama saak. ñuy ànd di dem làmb. Uh-huh. bi may jugee foofu di ñëw dakaar indi naa vingt 26 nag. déggoo ma de bi may jugee àll ba di ñëw Dakar 26 nag laa indaale li ci ëpp dama ko maye. waaw déggoo ma de kii nag duma wax ci moom kii du wax ci moom na gars yi seetaan dinaa bëreeg mbër mu yenu ba ci kaw ma taxaw ci air bi. kon ñoom ñun ñëpp ay yalmin lañ. yow ci yalmin man maay bu mag bi. man man may ànd ak Siteu ànd ak moom jiital ko. ne ko eh jàppal daanal mu jàpp daan chaque combat Siteu bu Siteu daanee. man ngay combat ci ñi ko daan ñii ci lañ bokk. ñii defuñu dara sax.